dégg naa fii keroog gaa yi di wax naan innama almuminuuna iqwa faslihu bayna aqwaykum wattaqu laa laalakum turhamuun dëgg la julit julitay mbokkam al aaya di li muy jegeñe jegeñe bokk ñu lu ñu dox innama almuminuuna iqwa waxi boppam la faslihu bayna aqwaykum waxi boppam la wattaqu llaha waxi boppam la laalakum turhamuna waxi boppam la ñoo si soo rappay bokkuñu lu ñuy dox innama almuminuna ixwa xamle la faslihu bayna axwaykum santaane la wattaqu llaha tëkku la laalakum turhamuna dige la ma ne innama almuminuna ixwatun xamle la borom xam-xam a ngi xamle dég loo war فاسله بين اخويكم برم بار سنتانينا غالنتي وتقول لا برم دول تكون التيت لين لا لكم ترحمون غور غدول جيخال ديغينا ياكار لين أخوة الدين أقوى من أخوة الطين والنظر مبكوك دين موغن وور مبكوك درت أك مبكوك مين جسل ما جوخ لبين اكسامت bu sa bàyyi dee yéefar nga di jullit mbokk ga dog na du ngeen donnante boo dee jullit sa bàyyi di yé soo dee soo dee yéefar sa bàyyi di jullit mbokk ga dog na du ngeen de du ngeen donnante di soo dee jàmbur ma di jàmbur ma takkala ñu donnante te bokkunu dara kon mbokk ga lee gën a dëgër gi nga xam ne euh, euh, ndonante yi suñu bokkeek suñu bokkul du dàqu ben solo ngi sax bu sew ñaari doom yu bokk ndey bay saqiqa saqiqani saqiqaani yatawarajani dañuy donante su fekke amul lo xamne li dañ koy wax ujbu irman dafa am ujbu nuqsan ak ujbu irma urbu nuqsan mo jëlele ci par bi nga waroon a am puus la ba nga am lu gëna a yées loolu irman nag mooy dootoo faf am ñaar ñu bokk ndey ak bay te mënuñoo donnante sariya tax mooy ñaar ñoo xam ne kenn ku ci bi ngay juddu juddu woo ci buum benn waay bu am doom ci ndaw te takku ko mu feral mu amaat te doom te takku ko ñaari xale yooyu duñu mën a donnante li ñuy bokk bokk ndee baay ndax sariya lañuy gestu mu ngi mel ni tey nit ku di jullit di liggéey di góorgóorlu di liggéey di góorgóorlu ba xëy muurti su dee doo ko donn yow doomam waaye ñu ngi lay aaye fi mu murteeg léegi waaye la mu doon dajale bi mu doonee jullit danga koy doon sariya da la koy waaw sew sew la di moom waaw moom jullit la woon di doon jullit di doon jullit ba xëy murti nekk yéefar murtada daal di nekk yéefar dootoo leen doon lante mais ñàkk doon lante gi mu ngi yem ci fi mu murtee ak waaye ba mu doonee jullit la mu faggu woon ba bi mu murtee dañ cay kon inama moom ne ne aslihu bayna aqwaykum imaamu Junaydi lan nañ ko ma aqwa laaj nañ ko luy mbokk mu ne fi aqiqatin huwa anta ilaa wa annahu shaxsun xayruk ak a mbokk piir piir mooy yow mu ne yow mooy yow waaye nag ci dëgg-dëgg da di ji jëmaati xare ci yow dafa am sabq am xulla am oqwa xullatoo gën a sori xaritantoo bu taqee ba taq tëra deñ day jurug mbokkoo mbokkoo bu tëra deñ day jur day jur ak ak bëggante xulla moo tax kilifa gi li mu wax léegi di dëgg liimaan dafa am solo gëm wa basir alladina amanu bi anna lahum janna anna lahum rakla dañ ko asar sara bee ci indi baagi tajri min tahtiha al-nar wa aswaju mutahhara la wax foofu dégalal ma ñi gëm yàlla dañ koy gëm nabi dañ koy dëggal amano bu jëmee ci yàlla gëm la bu jëmee ci nabi dëggal la gëm na yàllaay buur dëggal na bi na yàllaa ko yónni li mu wax na yónnitu bee ko wax yàlla ne na bégalal ma ñooñu ci kër gu dul ràpp mukk ñu dëkk ko te ñu dee mukk dinaa leen fa may ay jabar nag jabar yooyu day wuteeg seeni jabar moo tax euh, baraam bu baax bi sànq àjjana dafa dafa dafa foor te neex ba loo dégg ne mën na ci bu nit war nga cee sonn c'est rek wa aswaajun mutahhara jabar yu laat laat ñett la laat bu daayir ak laabu baatin ak baatini baatin laabu daayir ay jabar lañu yoo xam ne du ñu ñaq du ñu am kawari poqataar du ñu am ñandaxi du ñu am nelawit du ñu am tër dañuy porab kookoy laabu saayir laabu baatin bi du ñu gis reegal du ñu wasit du ñu génn tànk du ñu tuur ndox bu baatini baatin bi duñu nag ku dul seen jëkkër gëmuñu ku dul yàlla waa aswaajul mutahhara hmm? te wahum fiha xaaliduun